Thank you.

réew boo fi nekkee dangay ngay dimbale ñi fi nekk quoi di ñaan yàlla état bi fi nekk yàlla def si xéwal gudd fan kontaan nañ trop quoi waaw ñun ñun ay citoyen sénégalais lañ bu ñu nekkee si réew mi il faut ñu dimbale ñu fi nekk li ñuy def nii dañ koy def avec plaisir rek quoi doomu aadama amul lul boppam yal na leen yàlla defal xéwal état bi yàlla def si xéwal yéen yàlla defal leen gudd fan ak wër defal ko mépp doomu aadama ku ñu tëdd si lal hôpital yi yal na leen yàlla saafara ñu jóg ak jàmm barke nabi Mustafa jërëjëf

pour participer gën leen may doole bu Sénégal yëpp di si gis seen parce que su ñëpp mayewee deret donc je pense que ni médecins yi dinañ ko soxla ba képp ku fa ñëw soxla ko doo fa traîner. am na loo xamante ni nii euh, kenn umplewu ko ndax am nañ suñuy yaay suñuy papa suñuy nijaay suñu jarbaat suñu rak suñu mak ñu ci hôpitaux actuellement ils souffrent parce que ñu ci ëpp ci ñom wala ñenn ñi ci ñom amuñu ku leen may deret wala am na si ñoo xamante ñu ngi ci hôpitaux yi bokkuñu dëkkuñu ci localité bi nga xamante ni effectivement foofu lañ leen euh, hospitalisé donc ñooñu ñu ngi leen dañ leen war a di bàyyi xel bu baax a baax a baax def action humanitaire yi ni mel pour à ce que vraiment ñu mën a retrouver waat seen seen seen bonne santé une bonne foi. damay commencer par féliciter euh, toute la JPS euh, de la section communale bu Patte par rapport ak réussite activité bi ak mobilisation bi ñu def mu nekk une activité citoyenne loolu mom len rek lay lay wane wala bok sax lay wat lay wax moy euh, nouveau type de sénégalais bi gaay théoriser théorisé Pastef moo ko matérialiser ko ñun ñoko jëmmal ndax té euh, on a amené une autre façon de faire de la politique politique nekul juste pour euh, wane wala pour def ay affaire wala pour wax mais c'est déjà un engagement bo xam ne koy matérialiser di jëriñ sa askan depuis les set setal ba ci ba ci ba ci ba ci don de sang yi ba ci euh, toutes les activités sociales yi nga xamné ne dañ koy def ngir jariñ askan bi parce que non lañuy non lañuy doxé té non lañuy la ñuy continuer di li nek ben activité rek bu ñëw diko matérialiser don le sang képp ñëpp xam nañ ni activité bu am solo la ndax dafay jëm ci walu santé gis nañ rupture de sang yi nga xamné mi ngi am ci banque de sang yi euh les les euh, ñi nga xam ne am accident yu grave perte perte de euh, sang bu bari ñu war leen jappalé donc don de sang ça peut sauver des vies benn don de sang rek ça peut sauver des vies té ñëpp xam nañ ni ñu wax ci ku sauver benn vie mel na ni sauver nga toute l'humanité entière

Euh, biñu commencé une campagne ñu ko commencé ak set setal tay ji ci biir campagne électorale encore ñu defaat journée de don de sang euh, je pense que liñ li ñu doon wax euh, ci rupture en tout cas Pastef Patte d'Oie mu ngi koy matérialiser bu baax baax mais bo xolé au niveau national sax da nga gis ni rupture bi ñu doon woote tey jii Pastef mu ngi Pastef en général ndax do gis fenn liñ daan gis da nga daan gis buñ daan woté meeting buñ daan nekk ci biir campagne électorale da ngay gis nit ñi dañ daan dem sans programme mais aussi daan na ngeen gis euh, sunu yaay yi ak sunu jigéen ñi foo leen gis-gis xartum yeeg Lagos yi ma tooñaal leen tuuti mais cette fois si da ngay gis nit ñi dañuy génn vraiment ak déglu ak xaar programme te loolu je pense que ni euh, Pastef tey moo fi indi journée bi nag euh, ñun dañ ciy féliciter en tout cas jeunesse bi nga xam xamante ni ñoom ñoo ko organisé. di leen encouragé bu baax a baax a baax euh, di ñaan euh, incha allah tamit ñu multiplier journée yu mel nii même burul Pastef ak ku mu doon pour ñun au niveau de la commune wala au niveau national genre journée yu mel nii dañ ko war di bu baax a baax a baax ndax am na solo comme ni ko coordonnateur waxee deret nit ñi dañuy def ay accident yenn saa yi dañuy feebar dañuy soxla ku leen may deret te boo benn vie euh, comme ni ko waxee sauver nga humanité bi